<coughs> balaa rek ñuy jaare ci darsu bi ñu leeral rek ne darsu bee weesu waxoon na li naxwu sabu maanin qad atat lugatan jamatuha dimna baytin mufradin kamula qasdun wa mislun wa miqdaarun wa naaxiyatun wa nawun wa naxwu xawma fu mu nekkee xarf <coughs> <coughs> waaye waa ji jubluwut ci ne xaraf la xarfu maanaa la ci jublu xarfu nag yaani al maylu jeng wala al imaadu soril dégg lay firi man ngaa wax naxa shay'a mooy abadahu soril na ko man ngaa waxit naxawtu jublu naa ilayhi ay miltu jeng naa kon naxu dafay firi maylu jeng wala ibaad <coughs> soril waa xarfun maanaa boobu la yore نحى جبلنا إلى زيد أي مال إلى زيد ولا نحى سرنا الأزعل عني ورسم ما أبعده سرنكم كون فرغل لي حرف فوف دي ما فحفظ وتر المسألة مثالي دنگ waxon لك nak درس darsu النوع قسم بن ذلك إن هذا على خمسة أنحاء مو أنواع بن <coughs> باب عبد الكلام بنت بي موي جانغري فريم كلام ديب كلام <coughs> بني واحد ديب كلام موي حقيقة الكلام محد الكلام abdul kalaam yi ci naxwaari ba maa mooy la nga xam ne afaada jëriñ na al mustame aji déglu ci noonu la ko téere yëpp di jàngale abdul kalaam yi dëgg-dëgg kalaam maa mooy li nga xam ne afaada jëriñ na al mustame <coughs> aji déglu ci naxu comme sa wax jëng naan naxu foo ko fekk rek dañ mudaaf ilay wa qawlu guñ xasaf la wala nga ne jumla ba ci topp mooy mudaaf ilay bi buñ ko inrab dana gën a leer naxwu comme sa wax jig ne saa dox na zaydun zayd wa amrun te mbir moom amru mu tabiun aji topp la ca boo ne saa dox na zaydun kooku kalaam la ndax xibaar na la dara kon dëgg-dëgg kalaam mooy dala xibaar dara comme ça dox na Zeydun xibaar na na jëmm ju tudd Zeydu de dox na ba pare amrun mu tabiun nag kooku def lay xibaar ne jëmm ji ñuy wax amru de ma ngi ci topp ma nga topp Zeydu <coughs> kon amrun mu tabiun kalaam la saa Zeydun kalaam la nga dee gis ne kalaam fin ñaari fin ak fin lay lay lañ koy tëggee wala ñaari ismu waaye du nekk mukk ñaari fenlu du nekk it ñaari xaraf kon loolu mooy maanaa kalaam xaddul kalaami ma afaada almustami naxu saa saydun wa amrun muttabi sharaa soobu na annaazimu waykat bi fi taarifi alkalaami ci xam ne lan mooy maanaa kalaam dégg nga <coughs> wa zakara tudd na ak mooy li nga xam ne taxsulu dana amee bii ci moom alfaida njëriñ wa yaxsulu dana rafet a sukuutu noppi alayhi ci moom kalaam daal mooy wax joo xam ne buñ ko waxee ba pare daal nga jariñu ca maanaam nga xamee ca dara te dana te aji wax ja mën naa noppi dana rafet mu noppi mooy mën naa noppi bépp wax joo xam ne aji wax ja bu ko neexee mu noppi te yow da ci ca déggee lu xam njëriñ loolu kalaam la <coughs> lan mooy da ci déggee lu am njëriñ aji wax ji mën naa noppi bi xaytu laa nga xam ne du mujj asaamu aji déglu ji muntaziran di xaar di che an di che in yeen mbir aaxara beneen boo xam ne tax sulu dana amee bii ci mbir moom faydatu njëriñ buñ la waxee aji wax ji mën naa noppi mooy yow wax ji moom boo ko déggee xaaratoo lu lay mottali wax ci mën ngaa nag kaar leneen lu gën a leeral wax ci waaye nag xibaar moom am nga ko buñ ne akala lekk na muhammadul muhammad ah mën ngaa xaar loom lekk di ko déglu ci aji wax ji loolu pour bëgg a yokk la bëgg leeral waaye nag boo ne wuñ ne akala muhammadun rek xam nga ne waaye xibaar na ne jëmm ji ñuy wax muhammad lekk na kon xaaratoo luy mottali njariñ waaw soo déggee wax yoo xam ne xaaratoo luy mottali xibaar waaye luy gën a leeral xibaar ngay xaar xamal na xamal na am nga kalaam ba pare foofu am na ñetti mbir yuñ fa war a leeral بابون دفنا ف واحد عدو الكلام دف ده في يفترى والكلام كلام في اللغة في لغة العرب يطلق درنكو بويل على كل ما تلب لو خمنا تتم دنا مد بيك مم الفائز من من لفظ مو خم أو خط ولا بند وإشارة ولا جنجو <laughs> أو غير ذلك ولا ذلون <coughs> كلام كي لغة موي لب لام جاري مو خم دن كو تود ولا نكو بند ولا جنجلة لو خم ندا عمل نانجاين دال كي لغة موم كلام لا وفي اصطلاح النحاة بوليس جفنكم نيوان نحوي النحاة جمو نحويون نحات موي علماء النحويين ñoom ci seen dëppoo ñooy salaam mooy lañ juboo rek di ko tuddee kalaam maa mooy la xam ne ijtama la jëloon fii ci moom arba'u te ñeenti sart lu ñeenti sart yi <coughs> dajee rek kalaam la waaye moom ay yakoon mooy mu nekk lafzan di baat <coughs> murakkaban bu toggaloo moo fii dañ di aji am njëriñ bil wati ci tëradinu arab yooyu dana ko jàngale benn pot benn hmm, kalaam ci naxu day nekk lafzu murakkab moo fi bil wati yooyu dana ci ñëw léegi nii waxat te dama ne làmboona baytu naazimi baytu waykat bi xaali suróoti sart yi yëpp ndax ba waxee na sa en zeydun lafz la baat la murakkab la ñaari baat la mufiid la am na njëriñ bil wadi yi yi jëfandikoo arab la lenn alfaayda ndax njëriñ li mu tastal ci mu day waral ak tarkiba toggaloo wala lafz ak baat wala wada ak tërinu arab ak <coughs> fii dim ni ma masala ci biir la misaale na bii ci moom misaal moom joxe rek ان نينت ييب كوم نيو واخني سا زيد بن عمرو المتبعون بن بو نيك رك جمله لا لفظ لا مركب لا مفيد بالوادي لغي باب حد الكلام برم فهرس بن الباب ما ما خامن يتوصل دا نجوت لكو بي سي موم الى شيء جيم سي دارا الباب بنت موي لا هيغلي سي دارا ومو حقيقه دغ دغ في الاجزاء مي سي جيم ke baabil masjid yi comme jàkk bu dul buntu bi doo mën a dugg ci jàkk ja woo ma ja kon jàkk buntu dëgg la am wa majaasun majaas la fil maani ci maanaa yi kaasal baabu comme bi la buntu ëll yi ba nga xam ne ndax ñun bi saddee ñu ngi ci wàllam wala ñu ngi ci mbiram ah bu ñu waxee baabu wax abdul kalaam nag amul bunt waaye dafa dajale ay masala yoo xam ne nii ci kalaam rek lay wax <clears throat> di la lan mooy kalaam su ko defee loolu dañu tuddee ko bunt waaw mais bu ko defutoon bunt yi jaxase ko sax ci biir téere bi rek indi mas man nga ko xam man nga ko xam waaye na xam nga du gaaw léegi nag xëy na li li muy yombal xam nga moo tax ñu tuddee ko baabu waaye du buntu dëgg-dëgg sadat nag buñ ko waxee mooy alqasdu liñ jublu ma naxnu bi saddi ma naxnu naqsiduhu rek dégg haada li moo taariful kalaami mooy xamle kalaam dafay ñëw ci firi xaddul kalaami ma afaada ma afaada almustami mooy loolu mooy taariful kalaam واي ولم يتعرض قال لود النازم وي كلمين كلمة فور خمين ما يكلم كلم كي يما جمو كلمة رك نتبات كون ديحنا والكلمة هو ما ترك وما يرتو من ثلاث كلمات نتبات لا لا لا من لا لا لا لا لا جمع كسرة ترى لا جمع كو با 11 لا لا لا لا لا لا لا لا waaw waaye gis nga ñetti baat la wal kalimu woo ma taraka mooy la toggoona min salaasi kalimaatin si ñetti baat faak sara mbaa la ko gën a bëri sa waaw moo xam afaada jëriñ na nax wa comme xad xaama taxaw na zeydun am lam yu fit wala jëriñun nax wa in xaama zeydun bu zeydun taxawee kalim ñetti baat rek lay doon <coughs> moo xam am na njëriñ wala amul njëriñ <coughs> ñetti baat daal foo ko fekk ci làngu araab tuddee ko kalim boo amee njëriñ ni ki xat qaama zaydun kooku kalim la zaydu taxaw na bu amul njëriñ ni ki in qaama bu taxawee zaydun xam nga loolu charte rek la wax ji daanagul bu zaydu taxawee loolu mën na cee benn information daal kooku <coughs> kalim la ba tey kon kalim mooy ñetti baat afaada dégg am lam yu fit jëriñ na wala jëriñut <coughs> اما كلام ما يوح جو ام جاري موم مقمر نجي تفات ولا متلكو اذا كون فال كلام وكلام والكلم والكلم بينهما نكنا سنتيجن عموم اك متل وخم نيوكو نيوكو بوك وخصوص اك جاغو من وجين سي كانام ما دا فام فو خم نيوم نيار نيوكو بوك داجي ام فو خم ني كلم رك كاكو مانا تودي اك فو خم ني كلام رك كاكو مانا تودي لو موي عموم وخصوص من وجين بامي نيار يخم نيوكو بوك داجي سي لي موم waaye kii moo jagoo lii kese kene jagoo dale kese umumun wa xususun min wajin la nga ne ko fan lañ daje ak fan la kenn ku nekk jagoo loolu mooy umumun wa xususun min wajin mu ne fay tam ànd leen dajaloo fi xawli naa suñu wax qaama zaydun zaydu taxaw na kooku ñetti xaraf la qad qaama zaydun kon karim la waaye kalam la parce que am na njëriñ kalaam mooy mooy wax ju am njëriñ ñaari araf ñetti araf ci am kon boo ne xad qaama zaydun kalaam la kalim la ndax ñetti araf la kon kalim la am na kalam la wayen faridu dana beru al kalaamu kalaam anil kalimi walis kalim fi naxwi ci kem wax ji nga ne qaama taxaw na zaydun boo ne qaama zaydun zaydu parce que am na njëriñ waaye du këlim parce que matul ñetti baat këlim mooy ñetti baat am na njëriñ wala amul njëriñ wayen faridu dana beru al këlimu këlim anil kalaami waris kalaam fii nax wi in bu taxawee zaydun kooku ñetti baat la kon këlim la waaye amul njëriñ kon du kalaam parce que kalaam force lay am njëriñ kon gis nga boo amee ñetti baat yu amul njëriñ këlim kese nga am boo amee nag ñaari baat yu am njariñ kalaam rek am boo ñetti baat yu am nag am nga kërim am nga kalaam kon kërim ak fañ dajee mooy ñetti baat yu am njëriñ fam nekkee këlim kese mooy ñetti baat bu amul njëriñ fam nekkee kalaam kese mooy ñaari baat yu am njëriñ loolu mooy bay noo ma moomoon soo sun min ci <coughs> daa am fuñ dajee boo ko fa nekk ñoom ñaar ñépp nga xam ne mën nga leen tuddee jumla boobu am kenn ku nekk foo xam ni moom rek nga ko mën a tuddee kalim mooy ñetti baat am na njëriñ wala amul njëriñ kalaam nag mooy wax ju ñaari baat lay doon jëm kaw léegi la ne kalaam ci loxo mooy lu am njëriñ moom lay sarxaat <coughs> ne kullu ma tatimu lépp loo xam dana mat bii ci moom faayidatul njëriñ foofu moom kalaamun kalaam na fi loxoti امبري لا غرب واخ جو ام ديرين رك كوكو كلام لا تي لوخو وخن تي نحو ما لپ لو ام ديرين رك مخم نكو بند بند نكو كلام لا تي لوخو وقد تحاورنا عن النبي جل الله عليه وسلم أنه نمو ينتمي قال وحنا ما بين دفتي مصحفي أنا كسي ديجنتي نياري والكامل بي كلام لا يوخي الله te la nekk ci kaay bi dañ koo bind parce que maaw tudde ni ko karaaman karaam maa kaw ni ànd ak nekkam xattan di luñ bind te naxu luñ bind du karaam labdu lay doon parce que naxu la ko tax a mooy maas te bu njëkkoon arab yi daawuñ bind daawuñ maas daawuñ tomb kon buñ bindee mënoo ci xam wax ji jub na wala jubut waaw waaye buñ waxee moom masque yi foo mu feeñ Mhm. ba ci alxuraan sax si njëlbeen wàccam amul maas amul tomb ba ci ni yonent bi génn àdduna bàyyiwul fi maas bàyyiwul fi tomb mhm, kon maas ak tomb moom gannaaw ga da ñëw moo waral ñuy bind saafara ñoom duñ garaaw duñ masque yooyu <coughs> waaw <coughs> naxaati nañ laan xoolee wax ji jub ci wax la pas ci bind ndax bind amul maas amul tom si <coughs> seen jamono amaa suñu jamono ji nag bind yi moom lañ jamono ji moom bind yi dañ koy maas ne yonent bi tuddee ne ko kalaam ànd ak ne moom xattan bind la kon kalaam la ci luxa بل لفنك إن حديث النفس لك وقتان بكن كلام وحلا سائن اللغوي نتي واللغوي من لغة لا يقرأ سبكن صح كلام لنك جابه وين سبودين أسكن إلى أختل إلى أختل كان لون تصورة ويمجمي إن الكلام لا في الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا والله وحنا ذكر وإن الكلام أنك وحلا في الفؤاد من كبر قلب وإنما نكا لأن بأم جعل دفن اللسان لم من دليل متكتر الفواد قل لم من ديتر دير القل لم بغا وخ آه، قل موي وخ لي لغي وخ جي نيك سي قل بي صاح لام بي لوتو سي غينيكو دا <coughs> مونوكو ترادي كون لي قرات سي بيت قل لولو كلام لا سي لوخ di la génneewoo ko su ko defee nag muy saraxa fi istilaahi nuxaat si ne xaasal kalaamu wax jii nag ñu ne mooy loo xam ne lafzu la murakkab mufiid bi wadi fi istilaahi nuxaat si ci jëfandikoo ci dëppoo ñooñ naxu nag la nekk kalaam fa xaraja génn na min zaalik ci kalaamu wax inda luxa wi ne ci waa luxa ñooñ luxa moom lépp lu am njëriñ rek di li ngay xalaat sa biir xol la كلام نين كتودي كما ذكرناكم نين كتودي لول دو كلام تي نحو وخايد جن الكلام هو عند الفقهاء كي بروم سونكم فقهي كلام سي نين فقه فهو لول عندهم فنيوم <coughs> ما ابتلم ولا يقنا الصلاة جل من حرف مفهم ولا بو من حرف تعرف مفهم بأجي ديغلو دارا بيب حرف بو خامني رام نغا سي ديغي دار رك لولو كلام لا واخ لا سي فقه te day yàq julli kon wax ci fiq mooy lu yàq julli mooy araf boo xam ni mën ngi ci déggee dara kat xi dégg nga musalal i eh. aw xarfayni wala ñaari xaraf way lim yu fima dina dégguloo dara sax ñaari xaraf moom boo amee rek wax julli ga yàqoon moom même bu dee ñaari xaraf yi dara comme man ak ant moo tax ñuy wax mag ñi ne mag ñi nga xam ni mm, jànguñ surtout jigéen ñi bu ñu julli léeg-léegi ab xale sonal leen léegi ñu ne julli ga yàqu na ndax xam nga ne moom ëpp na ñetti xaraf wala un yooyu yéen di moytu ndax wax ci julli moom bu dee benn xaraf la moom bu amee njëriñ rek nit ki xam li nga bëgg a wax kooku wax la yàqu na bu dee ñaari xaraf la nag mu xam ne njëriñ xamul njëriñ julli ga yàqu na ndax wax na ci fiq waaye waxoon ak ci naxwu kalaam ci naxwu kon mooy loo xam ne ñeenti sart yi def ci dajee mu nekk labzu murakkab mufiid bil wadi nga ne ko lan mooy labzu mu ne wa labzu labzuhu moom assawtu mooy kaddu al mustamilu bu lamboo ala baadil حروف لأن تعرفي على بعض حروف الهجاء لأن تعرفي جي لفظ mooy kàddu gu am lenn ci xaraf yi ji sawaawun moo xam afaada jëriñ nekk zayd am lam yufit wala jëriñu dara ka dayz maqlubu zayd mooy zayd buñ jàllar bi mooy dayz dayz kenn tudd ko waaye lafzu la rek kon lafdu daal mooy kàddu goo xam ne am na xaraf yi ñuy ijjee xaraf yi ñuy ijjee mooy alif baa ba mu jeex wala abajata hawasa ba mu jeex moo xam tur la waaye kenn tudd ko lafdu la rek kàddu lay doon kon dañ koy génne ci sa làmmiñ moom xaraf yi ñuy ijjee bu dee kàddu goo xam ne nag da nga fëgg buntu kàddu la waaye amul xaraf yi ñuy ijjee kon kooku du du lafzu bu nekkul lafzu rek du mën a nekk kalaam kon kalaam ci naxu foo mu nekk la benn déggee ne bind génn na junj génn na da ngay xalaat génn na yooyu kalaam la ci loxo pas ci naxu kalaam ci nax wi day nekk al murakkab mooy bu toggaloo ay lu mën mu ci murakkab min kalimateen mooy mu nekk ñaari baat faak sa mbaalu ko gën gu bëri fa xaraja génn min zaalik ci baat al mufradatu bu wéet benn baat génn na naaw muhammadun benn baat la baytun kër kitaabun téere kooku fa lay sa nekkut kalaaman di kalaam fi istilaahi nuxaat si jëfandikoo yi ñooñ naxu muhammadun xam nga ne lafz la waaye du ñaari baat kon nekkut kalaam ndax kalaam ñaari baat rek la mën a doon jëm kaw al mufiidu bu am njëriñ lay doon ما يوحى جو خمي خبار دانا درا اي لو من مفايد من جاين جو خمي تحصول دانا ام لسامي اي فايد من جاين تحصول دانا ام لسامي ني راجي ديغلو جي ني خمي يحصل دانا رفت السكوز نوبي عليها تي واخ جوجي ولا تي جاري نورو من ام واحد دال نام نوم خبار لول موي نام جاي نام نوم خبار متى ما دارا باتي عربي اسمه لك فعل وحرف دانا نجي نجي نجي benn ismu kese du am njëriñ ni ki muhammadun benn xarfa kese du am njëriñ ni ki fii waaye fi'lu kese moom foo ko tuddee rek xamal ne jëf yoo gis aji jëf jàng fa kon ñaar la moo tax muy am njariñ moo tax fi'lu foo ko tuddee rek ñaar nga tudd jëf ji ak ko def ak la lekk na mooy ne am na waa juñ xamut ju lekk kooku xibaar na la dara moo tax ak la lekk na bu ñu laajee lan la neen neen kalaam la ndax labsu la baat la mu rakab la toggaloo nañ am na njëriñ ndax wax na ne am na góor goo xam ne xamuñ ko de mu lekk am na góor gu lekk waaye xamuñ kan la kooku kay wax ji am njëriñ la waaw moo tax foo fekk fen rek mën ngaa gis mu mel ni benn baat am njëriñ fekk ñaari baat la beneen ba lañ koo nëbb dañ koo nëbb waaye yow déggee nga ko ci biir wax ci fa xawlu naa suñu wax ida xadara bu teewee almawtu dee xadar yi labsun baat la mu rakk bun bu togg lool waaye moom lay sa nekkul mu fi den di am di am njëriñ li am noonu ndax moom laa yax suñu du rafet ak sukuutu noppi xale yi ci moom bu dee ñëwee boo noppee kenn doo xam li nga wax kon labsu la baat la mu rakkab la togg lool ñaari baat la waaye amul njëriñ moo tax nekkul kalaam <coughs> قلنا بني وخا إذا حضر أبو تي الموت دي فلا مفر دي رك داو منو شمو بدي نيوي كم منو داو إن أجر الله إذا جاء لا يأخر ولا القرآن وقت وقت بي الله بني وي يالا تخار بين ملت بعد نيب دا جوان ديت يالا ني إنكي وهي وقت بني وي تمت بكن بدورات بمك بعد نيب نورت يالا ني مكو وهو الجاني والنيل غريب يلا إذا حضر الموت فلا مفر منه بدين كم من كودا وكو كلام لا فهذا الكلام لي موي كلام مفيد وهذا الكلام وحدي مفيد أجي أم جارين لا لحسن السكوت إن رفت النبت عليه تمم نخفو بوما بين خم لي بغوخ <coughs> كون كلام دابا نيك لفظ موي كادو غام عرفي نيجي nekk mu rakkab mooy ñaari baat jëm kaw xibaar la dara loo xam ne nii na la jox ab xibaar waaye wax joo xam ne xibaaru la dara du këram ñeenteel bi mooy al watu bil watu yi bil watu yi nag wutee nañ leen lañ ci namm waxtu li fa wutee nañ fil muraadi ci lañ namm minu ci bil watu yi te xëy na am na ñu ne bil watu yi arab yi mooy na nekk tëralinu arab maanaam baat bi na nekk baati arab loolu lañ ko jàngale woon ca njëlbéenu téere yi waraada boo sukkandikoo ci wax ji fa sort dañ sartaal fil kalaam yi ci kalaam andee bi yéen de baatu arab amal kalaamu inglis yi waaye langue anglais wala français ak français wa xayruhuma ak lu ñoom ñaar fa laysa kalaaman nekkul kalaam fi istilaaxi nuxaati si dëppoo ñooñ naxu lu tax du kalaam parce du arab waxoon ci ara anglais wala ci français wala lu mu mën a doon du kalaam waxuñ la amul njëriñ de ok am na njëriñ waaye wax ji mënuñ ci génne atteeb naxu fay rek mafoonoon bi rek duñ ko ci génne moo duñ ko tuddee kalaam naxu masque yi lay jàngale ak maanaa waxi arab kon nag <coughs> kon li nga xam ne mooy waxi arab loolu la mën a kalaam xeebul yeneen waxi de waaye wax ji nga xam ne mën nañ cee génne attee naxu arab lay doon ndax arab lay jàngale naxu arab lay jàngale <coughs> waxi la wax nañ almuraad lañ ne moom bil war yi ci tërlin alqasdu mooy jubluwaay yooyu dinañ ci gën a ñëw am nañu ne bil nekk wax yoo xam ne da koo jublu waaye bu dee wax yoo xam ne borom jubluwul ko ci wax lu wax ji rafet nekkul karaam waaye loolu bokkut ak li gën a wér daal wala hada bu sukkandikoo ci ni bil wari mooy wax ji ne nekk wax ju jublu fa yaxruju dana génn kalaamu naa imi waxu aji nelaw kuy neraw di gént lam wax du kalaam <laughs> danga nga wax ñëpp xam nañ ko waaye yow nga wax du kalaam kat waaw matul kalaam parce que la parce que ñëpp xam nañ li nga wax xibaar bu fës ba ñëpp xam ko nga ñëw wax ko yokkoo nit ñi dara kon ñu ne du kalaam am nañu ko firi loolu it kon dafa am ñu ne bil wat yi mooy baat bi nga jëfandikoo na nekk baat arab ñu ne bil yi mooy wax ji ki ko wax na ci na na na jublu wax joxe xibaar ñii ni déedéet yokk nañu njariñ waaye ak bu leen wax yokkul leen dara nekkul ko ba tey <coughs> waaye bi gën a wér daal mooy bil wat yi damuy firi mooy nekk baat arab <coughs> wal mañ noonu ak waxi dof du kalaam li ànd kalaamuma kalaamahuma ndax seen wax lay sa nekkul an xasdin ci jubluwaay fa lay sa nekkul kalaaman di kalaam waxi dof waxi kuy nelaw jubluwuñ lañuy wax moo tax du kalaam am na ñu ne it wax dina yokk nit ki njariñ loolu am nañu ko ci boole su baa wax joo xam ne yokku nit ki njariñ dara ni ki asamaan ak ci kaw ñu ne loolu du kalaam <laughs> Hmm. kon bil wali dafa am ñu ko firee ñetti anam waaye wala alal awala amaana anam gu njëkk gi foofu moom al aqrabu moo gën a jege njub kon fayakoon dana nekk al maqsud lañ jublu bi ci moom al wadu arab yi maanaam baat bi ngay jëfandikoo na nekk baat arab kon kalaam ñeenti saa yi mooy si daje lafzu kàddu gi am xaraf yi ñuy jéem mu ñaari baat jëm ko teg ci am njariñ maanaam jox la ab xibaar baat bi ngay jëfandikoo di baati arab ñeent yi bu dajee rek kooku kalaam la bu manqué nag <coughs> si benn manqué kalaam amul ci su ko defee al lafzu moom la doon sarxanoon ci suuf al lafzu masdar la urida bëgg nañ bii ci moom al mafulu al la boo xam ne maanaa ismu maful la اي لمن نمي في الملفوظ به لن تد اللفظ مو الملفوظ كلام دينيك لن تد كم كخلق بمعنى مخلوق لن بند خلق مو بند waaye fekk xalku buñ ko waxee maxluuq lañ bind lañ ci nam foofu nag al <laughs> xalqu كل ما سوى الله سبحانه وتعالى لب ريال رك مخلوق له لم بندنا من القرآن وخلق كل شيء وخلق كل شيء يلا مو بند هناك كن دودو يالا رك يلا مو كمان مو كبند loolu rek tegtal na ne yàlla fi jiitu lépp ndax bu fi jiitu toon lépp eh, kon am na lu mu bindut lépp loo xam ne moo yàllaa fa nekk door ak ci jamono rek ba ci jamono ci boppam <coughs> loolu yàlla bind ko yàlla moo bind lépp mooy tekki ne moom dafa nekkoon te dara nekkut fi gannaaw ga nag du xam lu ne مونا ساك مونا حمر انتهاج يحنا من شيء دينغ اسموني آه، خلق مانا مخلوق لا موي شرعات آه، واجو وحنا الصوت المستمع لبعض حروفه حروفه جاية kaddu lu gam len ci arif hijaya waxut len نيرت منما انما يقتصر نكهمنا في تعريف اللفظ في قمل اللفظ على حروف شعرفي ولا يقال لي على حركات مسكي نيما كادو غام مسكي كادو غام حرف رك لان حركات نام مسكي لا تنفكر تقلق عن حروف شعرف دا حرف مون بو غيسه رف مام مس كون فيا مسكي صح دنگا فيا dégg nga xaraf yi alfaazum ñooy baat yi wala fay <laughs> masque yi ci boobu tamit alfaazum ay baat lañ ndax ñoom duñ taxaliko xaraf yi boo ne xaraf baat da rek wala baat dafay am euh, kàddu kàddu am xaraf rek mooy kàddu gu am masque ba tey <coughs> kon xaraf ak yëpp <coughs> ñooy composé baat wasi bu waxi يسمي دنا تدي الحركات ماسكي حروفا صغيرة حرف داو سيبوي دهن ماسك حرف داو رلا ماسك حرف لك فدم تدم من واو صغيرة واو داو رلا مرة بوكي قتش رك واو نيو مو بو قتش رك واو نيو والفتاة فتاة ألف صغيرة ألف داو رلا مرة بوكي قتش ألف نيو wal kasratu kasra yaawun saxiratun yaagu ndaw la comme que nag masque yi xaraf rek lañ kon nag naan kaddu gu am xaraf yi ñu loolu mooy lafzu waaye bul wax kaddu gu am masque ndax masque ci xaraf lay nekk <coughs> muy sharaxaat lu mu wax yaxsunu sukuut alayha mu ne waal yustratu ndax danañ sàttal ci kalaam ifaadatul mu xaata bi nga jëriñ ka ngay jàkkaarloog chey an dara yee jaxaloo goo xam ne dana ko réere xawlaani am na ñaari wax wax nañ ne baat banañ ko tuddee karaam mooy njariñ li maanaam mu jëriñ la loo xamutu woon bu dee baat bi yokkul la dara dara dara dara ci information li nga xamoo rek la la wax ñu ne du karaam ñi ne déedéet ba léegi karaam la rek moom na ndax dañuy sàttaan ci njëriñ li mu nekk loo xam ne dañ ko réeré woon wala déet am na ñaari wax ahaduma benn bi mooy yustarat dañ koy saatal kay te yéen ñëpp su ngeen ñëwee xam ne yonent bi yonentu yàlla la may ne muhammadun rasulullah ne loolu du kalam parce que yéen xam ngeen ko bëri allahu ahadun yàlla kenn la yéen loolu yéen ñëpp xam ngeen ko comme que yokku ma leen benn information bu bees ñu ne kon wax ji du kalam wa jazama doogoon a bii ci loolu ibnu malik loolu la ibnu malik jàpp ne kalaam daal daf lay jox xibaar bu bees waaye lu la jëriñu dara dara dara jëlee lafzu la mu rakkab la jox na la information baati arab la du kalaam jëlee waa ji jublu na ko ci sax lu tax du kalaam <coughs> ndax yokkul la xam-xam loolu la ibnu malik jàpp <coughs> kon fara yu sama bi mu tuddee ndax lu mel ni asama wa asamaan ci fawqa ard mu ngi ci kaw suuf ci kalaam muy kalaam asamaan fooq arde ah, asamaan na si kaw suuf ñu du kalaam <coughs> lu tax ñoom ñu du kalaam ndax amul njëriñ ñoom loolu lañu wax kon kalaam dafay nekk loo xam ne dafay jëriñ dara bula yokkut njëriñ wax ji mu rafet rafet kenn du ko tuddee kalaam loolu la Ibnu Maalik jàpp asaani ñaareelu wax ji mooy laa yustaratu duñ sartaal mu jëriñ la lu bees na wax ji nekk kàddu goo xam ne mu la ñaari baat jëm kaw nekk loo xam ne <coughs> nekk loo xam ne damay jëriñ rek jëriñ na mooy mu jox la xibaar laa laa ci namu nekk baati arab daal su boobaa kalaam la di dee wax ci xamoon nga ko loolu moo gën a lëng moo tax mu ne duñ sartaal wax ji jëriñ la lu bees wa saxaaxoo wéral na loolu ab woow xayaan ndax qaala wax ne wa illaa bu fekkee du noonu kaara day nekk achéwu mbir wa alwaahid benn kalaaman di wax wa kay kalaamin du wax isa xutiba bu ñu waxeek bii ci mbir moom ma lay jàlloo ko réere fastafaar mu jëriñu al madmuunahu la la dégg lam làmboo su boobaa kalaam la kon boo ñëwee fekk nit koo xam ne xamul dara nga wax ko dara mu xam ko su karaam la su ma xoti ba topp ñu wax ak moom bii ci loolu saanee ñoonu ñaare su boobaa dootu nekkati kalaam kon mbir mi tey karaam la du kalaam benn baat benn jumla ñu ne kalaam la du kalaam loolu daal li gën a leer daal mooy ñu ne kalaam na nekk wax joo xam ni am na lum xibaar rek waaye duñ ci saataan nag mu jëriñ la dara te yéen su ma wax allahu ahadun yàlla kenn la loolu si njëlbéen dégg gi ñu ko dégg ñun ñëpp kalaam la ndax xibaar nañu ne yàlla du ñaar kenn la ñu jëriñu ci waaye suñ ñu ko xaatee te du nekk kalaam parce que xam nañ ko pare <coughs> loolu nag lay Abu Hayyan di bañ moo tax mooy daal kalaam duñ ci sàttaal mu jëriñ la lu bees intaa jeex na boo demee ci amul hawaami di téere boo xam ne imaamu Suyuti moo ko defar ci wàllu naxu nga xam ne wuute yu bëri am ci naxu andi na fa andi fa sew sew yu bëree bëree bëri boo ko liiree rek wala nga jàng ko daal xam xóotaayu xam-xamam naxu imam Suyuti da nga xam nu mu woon ci fànn boobu waaw hmm, téere bu jafe kone boo demee da fekk mu andi fëri dégg kon njariñ li duñ sàttaal ndax xamoon nga ko wala xamoo ko woon buñ la waxee wax ju am njariñ daal kalaam la <coughs> qultu ma ne war raajee la gën a lëng mooy àndoo nag li am ba am laa yustarat duñ sàttaal nga jëriñu ci wax ji njëriñ ju lu bees <coughs> yaa na surutul kalaam yi ndax sàrtaay kalaam innama yi nag moom bi nas li mooy xool ila alfaas yi ci baat yi u mufradaat yi ak benn benn yi لا إله إلا المخاطب بي لي قول تي حالو كاني وخك المخاطب بي موي كاني وخ لام وخني وقيل المراد بالوادي القصد ومن لنا من النحات بوكنا تي نحو ي نحو ما يسرت كسرت الكلام وخ في الكلام تي وخ القصد جبل فلا يسمى دون تدي ما لا خامني ينتقد نتب بي تي النايم اجي نراو ويساهي ولا جوم كلام وخ kii nelaw la muy wax duñ ko tuddee kalaam ku juum <coughs> la wax <coughs> duñ ko tuddee kalaam kalaam daf di loo xam ni danga ko ciy jublu wax joo xam ne yaa ko jubloo wax waaye kuy nelaw xam nga day gént ku jamaj dafa wax baat boo xam ne jublu ko ci woon loolu du kalaam boo <coughs> bii ci loolu jësam la doog ibnu Malik kon ibnu Malik moom dafa jëfal kalaam وذهب لنا البعض من يلين الآخر يلين إلى أنه نلي عن بام لا يسرط من سيطة القصد جبلو ني أبو دال ندرد واحد دال بعد لن يقول بمن لا وح كلام لم دو كلام ويدين قول أجي واحد تميت كم نيحو دين قول كان يوحك كون دين ساتال نحو واحد جبلو ووتي ولدت وخي أجي نراو بني أكرا لك رزيدون دو الكلام وذهب لنا هذا المذهب بلي دم واي أبو حيان هو مذهب أصحيح ومويلوير ولا أعلم يعني رقم واجي خم لأن شرط الكلام من شرط الكلام إنما هناك من بالنظر من القول إلى ألفاظه تبعت ومخرجات بن بن كما بيناكم من كل آن فلدي لا بالنظر ولا بالقول إلى حال المخاطب إلى حال المخاطب في حال أجي وحدي أو المخاطبة ولكن يوخذ أو المخاطب ولكن يوخذ parce que dañ ko atfu ci mu xaati bi kon xaal maanaam kalaam dañuy xool ca baat ya baat yi daal bu nekkee kàddu la gu am xaraf nekk ñaari baat jëm kaw am njëriñ di baati araab jeex na kalaam la ki koy wax nag duñ xool mooy kan ak lan la ci jublu kay déglu it duñ xool mooy kan ak lan la déggee ci wax am na ci njëriñ bu bees rek amul ko ci loolu mooy li gën a wér léegi nag mu ne waadal kalaamu bi la wax al mufidu ba aji jëriñ allazi bi nga xam ne ijtama dajaloon fii ci moom haadi sharaitu charte yi yan xasimu day seetlu ko ilaa jumlati ismi jumla ismi ak jumla fi'li kalaam jumla lay doon mooy ñaari baat jëm kaw jumla bi nag bu commencé ismu rek nekk jumla ismiya bu commencé fi'lu nekk jumla fi'liya hmm, mu ne wa aqalu maa yatarakabu la gën a néew ci la toggoo minu ci moom ak jumlatu jumla ismiya bi ismu naw eh, eh, mooy ñaari tur jumla ismiya nag la ci gën a néew ñaari tur la ndax wa amrun muttabiun ñaari tur la jumla bu commencé ismu rek jumla ismiya la وآخر ما يتتركب لدينا لنا توقل من اسم هو والجملة فعلية جملة فعلية موي فعل واسم جملة فعلية لدينا وشي متوقع موي فعل واسم نحو ساعة زيد ونظر المثال إذا ما ساعة زيد وعمر متبع ربما هذا كلام جملة اسمية لا جملة فعلية جملة بكماسي فعل موي جملة فعلية جملة بكماسي اسم موي جملة اسمية <coughs> اسم موي تور دين كو لين لين وهذا لما قصدوا ما يجب النازم ويكر بقوله وهم زيد وعمر متبع ولا يتألف لتقول الكلام كلام من فعلين يعرف فعل يعرف فعل الأمر كلام دونك يعرف فعل ولا من حرفين دونك يعرف حرف ولا من فعل وحرف دونك فعل وحرف ولا من اسم وحروف دونك اسم وحرف دونك اسم وحرف كلام دونك يعرف فعل دونك يعرف حرف دونك فعل حرف دونك اسم وحرف su ko defee ñu jëm ci suufam mu ne ixtalafa wuutee ne ak nuxaatu di wane ne xal aslu ndax lay cosaan mooy al jumlatu ismiya aw il fi'liya wala jumla fi'liya aw kilaahumaa wala ñoom ñaar ñëpp aslu cosaan lañ wutee nañ ci ala salaasal aqwaal si ñetti wax man ku nga xam ne ndax wi dañoo wutee ndax jumla ismiya mooy cosaan wala jumla fi'liya wala ñoom ñaar ñëpp bu nekk cosaan la am nañu ne jumlaay ismiya mooy cosaan am nañu ne jumlaay fi'liya mooy cosaan am nañu ne bu nekk cosaan la moo tax mu nekk ñetti wax nga ne ko njëriñu wutee gi ni wutee ga daa feeñ fii maa izaa bu jamtaloo al baat bi an takuna mu nekk mubtadaa di mubtadaa aw faa'ilan wala faa'il bu dee baat bi war naa maa nekk mubtadaa nga xasaf xabar ga wala mu nekk faa'il nga xasaf fi'lu ba boo jàppee ne jumlaay ismiya mooy cosaan da nga koy def mubtadaa nga def xabar boo jàppee ne jumlaay feneen mooy cosaan da nga koy jàpp da nga koy def faayil nga def fexlu ba loolu ay njëriñ gi loolu mooy njëriñ ñu xam dégg nga ban moo si cosaan naa wax xawli comme wax yàlla subhanahu wa taala wala in saaltum boo leen laajee man xalaqahunna kan moo leen bind la yaquluna danañu wax allahu yàlla moo tax dof yi taxaw naan tudd baatu allah rek daganut بعد الله قوت دفع أحسب قبر برك ولا هذا فعل برك جهنا لول القرآن قرآن كل ذكر لا يقولون لم يوق لن الله في الله دو مفعول لا يقولون لا يقولون دني وان الله خالقهن يلا لين بين محذف خالقهن تدو الله كسر ولا يقولون خلقهن بين الله يلا moisa finlu ba andi faayil ba kese su fekkoon ne tudd baatu allah moom kese daganut alquran du ko def wala ñu koy weddi xawma lan lañu weddi yow baatu ismu allahu allahu nu màggee ne tudd ko tudd ko dafa haram te dëgg dëgg daal yenn jàng yi léegi mu réeral borom nag wax dëgg yàlla kon fii allah dafa tudd baat bi moom dong te sal baram Diop yàlla ko yàlla yokku leer danaa ko dégg mu ne ah yàlla ne allah ñoom ñu ne bul waxal allah ñoom ñu ne bul wax qul allah ñoom ñu ne déet léegi da nga leen bàyyi ki ne qul rek yàlla ne waxal ñu ne laa taqul bul wax kon fi zikru baatu allah la moom kese dagg xabaram jo wala dagg faayal fexlom fa lafzu jalaale ci baatu mag bi muy allah imma benn an yakuna mu nekk faayalan di faayil فعله فعل محظوظ من حذف له وتقدير نتر خلقهن بالنين الله يلا يعني. غدغ خلقهن الله الله وإما بين أن يكون هناك مبتدا عندي مبتدا خبره خبر هناك محذوف من حذف وتقدير نتر الله خالقهن لكن بوجا بين الجملة اسمية موجسة الله خالقهن موجزة كن الله بوكي إرابي بوكي إرابي مبتدا خبرم دلی حاصل بوجا پین جملہ فعلیہ موجسان دونك اعراب فاعل فعل بنكل من هذا مو خلقهن الله بحسب الخلاف شي كم موتي اسابق باجل يلا يا خول جمله اسم موجسا ولا فاعل كان غتي عندك قال ابو البركات الانباري ان هذه ثلاثه اقسام من التقاجي التي هي خل هي اسم موتور دير لور يا كنا Euh, mu ngi ci beneen kii bi bi bi ñuy beneen bayti bi la bokk ñu ñëwaat ci bayti bi wa nawu allazi alayhi yubna ismun <coughs> wa filun suma xarfu maanan wa nawu xeetam xam nga jàngal nañ lan mooy kalaam wa nawu xeeti kalaam allazi bi nga xam ne yubna danañ ko tabaxee alayhi ci moom اسم تور لو فعل لك فعل ثم حرف معنى طب حرف ويتكر معنى تبقى نعرف يجي ألف باء يو يو جخو بين معنى كون كلام اسم لدون منام جملة بوغس ما جارين ذلك قمل لي اسم غفيغس ولا فعل ولا حرف منام يكنك نعر اسم كسي هذا هو جملة دال اسمه أكفاء وحرف لن يكون كومبوزي du force ñett yëpp dajee fa nag wax naa ne du nekk ñaari feelu moom du nekk ñaari xarfu du nekk feelu xarfu du nekk ismu ak xarfu mën naa nekk ñaari ismu wala feelu ak ismu ci loolu lay jumla di toggaloo ismu lay doon ismu mooy yoo xam ne tur la bu feelun ak jëf mooy yoo xam ni buñ ko waxee nga xam ne am na ku ko def kata rek xam am xam nga ne am na ku bind xaala wax nag xam nga ne am na ku wax xawlu wax nag كان نوخل كان له اسمه ده فعلا موي لو خامي امنا كورف ولا موي جيف جو عندك جمانو ثم حرف معنا توب حرف في تكتري معناكم الى ربي في الجم <coughs> الكلام كلام جنس قيد لا وانواعه اي فصوم ثلاثه نيت لا ام نيت فصوم كلام مو جنس مو ام لب اسم فعل حرف اي انواع لن كم نين لان غون موي جيمس اك لان موي نو لا رابع دي رك نينتل لا حد كو نين نيت فاصون لا ام امون نينتل موي اسم اك فعل اك حرف معنى وقول الله حرف معنى احترازا دي مويتو من حرف مبني تي مبني دنگ مبني حرف وين تگ ويقال له موم لا وخ حرف الهجائي حرف ني جي مبني والفرق لا يتقل بين حرف المعنى دي انت حرف المعنى وحرف المبني حرف وين تجمع حرف الهجاء ما انا حرف المعنى كلمة بعد بذاتها تجمع حرف المعنى كلمة لا وانا حرف حجاية ولا حرف المبني كو جزء الكلمة لا قاعدة تبات انا ما حرف جمم دا نك اسم اك فعل اك حرف يب كون ممنك نك نحو من جوجي in arfu dàq la hal istifham la yooyu ay araf lañ waaye dañu am maana hal pour laajte la in pour dàq la in na bu dee in na pour tawkiid la min di firi jógee yooyu araf lañ dañu am maana yooyu ñoo bokk ci xaaju kalaam kon kalaam ismu lay doon tur moo xam ni dafa am ku ko tudd wala lu ko tudd moo xam nit la wala du nit tur daal mooy loo xam ni moom dañ ko أسكني دارا من أنا كلو خلينا منو كلا صح كم الكذب فن كتور لا أصير ان تور لا وعي تور ما أنا لا لا يكمبران لين تدي من موي ان موهم وعجود دبوغ لي خاو مثل ليكو دغ أصير تور لا فعلوا ما خلينا بنكو وحيلا يعني خلينا أمنا كدف لكن ذهب بدمنا ورنا أمنا كدف xaraf nag mooy loo xam ne kenn tudd ko kenn defu ko comme min jógee amul ko tudd min amul lu ko tudd min doo doo si dégg ne am na ku min foofu benn jëf amu fa amma xarful mabni foofu juzun xaaj la mel kalimatin ci baat misla al mim min muhammad xaaj la ci muhammad ha xaaj la ci hal min hal ci hal qaaf xaaj la ci min qaama taxaw na kon gis ne xaraf hijji mooy xarful mabni danay dugg ci ismu comme Muhammad danay dugg ci xarfu comme xal danay dugg ci fi'lu comme qaama wasit yokkul xalaa zaalika ci loolu ne xarful maanaa ne xaraf maanaa yadulu yadulu day tegtale ala maanaa muayyanin si maanaa bu ñu ràññale xarfu maanaa dafay tegtale am maanaa fa min tadulu dafay tegtale ala ibtidaay ci tàmbali wa ilaa tadulu day tegtale ala intihaay ci hegg وعلى تدل على استعلاء تكوي وهكذا كمني بخلاف حروف هجاية وتك حرف يجي يجي <coughs> فلا يدل على شيء تدرى فلا يدل على شيء درى من ممعنى معنى انت معنى عربي يجي يامن بين معنى بين تكوي والإجماع دبو قائم دفتق ولا أن هذه الأقسام الثلاث من يتقاجي واسمك فعل حرف فقد دون هي مم أقسام الكلام ويخاجي كلام borom xam-xam yi dëppoo nañ ne kalaam mooy jumle arab wala waxi arab bi yépp benn muy tur wala muy fan wala muy xarf wa xaalafa wuti na fi zaalik su loolu Jaafar bun Saabir Jaafar bun Saabir ne xaaji kalaam ñeent la wa zakara mu tudd am na sammat na nekk na foofu nawaan raabian xaaju ñeenteel samaaw tuddee na ko xaari fatin noonu la ko tuddee وقصد مجيب لبيت مم اسم الفعل اسم الفعل نهو سه نبل ما يدو فعل أمره بس كي يوم خاطر من كدو وهذا اسم يد نه معنى فعل لا يره لول مو اسم فعل مو اللي يخم نيم دافاي ما معنى فعل تا ات فعل دو سي تابي من لولو خالف لا نكو تدي كون سي خاجي كلامي لا بوك اسم فعل فإنه نكم خلف ووتنا أن أسكت اسكت نوبي لوت اي خليفه خليفه لان لفظي تي بات با دفوت بات اسكت في افاده سي جارين ما لا خا يفيدو اسكت دانكو جارين ور دانيو دين ني تونتالي تي مبير اجماع تي دبو دنا دير بان خا يال دبو ني كلام ني تخالي اسم فعل حرف وبانه تا اسم فعل صح ين درجو دانا دغ تحت اسم تي رون اسم اي بو جعفر لو وخيت امنا اك انام ndax ismu rek ngeen waxoon fenlo xarfu bii nag moom waxu leen tuddee wu leen ko ismu rek ismu fenlo ngeen ko tuddee kon moom mbërkeel la <laughs> dafa doomi fas mbaam la <laughs> doomi fenloog ismu la ñaar yëpp la dajale dafa yore maanaa fenlu ndax moo fenlo am lu ñu bokk même maanaam après yore atteb ismu ndax mandargaay yi du dugg ci moom kon su boobaa ismu saam la ci xaaji kalaam bi la bokk loolu la Jaafar bun Saabir wax mu def ne xaaji kalaam yi ñeent la ismu ak fi'l ak xarf ak xaalifatun xaalifatun mooy ba wutu fi'l ñu ne déedéet ijma daal mooy lu borom xam-xam yi dëppoo kenn mënu koo dindi même boo amee tegtal yu dëgër yi doo ko dindi mu ne xaala wax na abul barakat ci saraba al anbaari ne xaaji salaasul aqsaam ñetti xaaj yi nga xam ne moom mooy ismu ak fi'l ak xarfu لها أمن ثلاث مراتب نت إتا فمنا أمن نيوم ما نقم يخبر دلين قبار بيك موم ما أم دلين دلين دلين كدف قبر يخبر بي مو دلين خباره ويخبر دلين خبار عنه تي موم أك بو خم ني من نكو ووتل خبار من نكو ووتل خبار هو اسمه اسمه من نكو كو دفي خبر من نكو ووتل خبر بو كو دفي خبر يخبر بي نكو ووتل خبر مو يخبر عنه نهوكم الله ويا ربنا مو سين بروم الله اسمه له wutal nga ko xabar muy rabbuna naa waaye rabb ismu la def nga ko muy xibaaree nga ko xabaree nga ko allahu kon faax barta xabaree nga bi ismi ci ismu bi mooy rabb wa anhu wutal nga xabar ismu bi mooy allahu kon ismu mën naa nekk xabar mën nañ ko wutal xabar bu nekkee xabar yuxbaru bihi boo ko wutalee xabar nag mooy yuxbaru anhu dégg ومن أمنا سنيوم مالا خمنا يخبر لنين قباري بيتي مو ولا يخبر عنه وارد كوت القبر وهم ألفان وما يفعلوا إنه ذهب دمنا زيد فعلا بلن شيخ باري دمك زيد دين ويفعل ممكن دكو فأخبرت خباري بالفعل كيف فعلوا دمك زيد يعني يكون خمري كيف فعلوا بزي ذهبه ولا أخبرت بوك بوك بوتر القبر عنه كيفان به فقلت أنا ذهب لأن ضربة لول دونيك معنى علم يكون دونيك كلاما كلام ذهب ممن كوتل خبر من غير خبر من غير جوه <coughs> خبر فعله دم بنا ذهب بكوت الخبر ذهب ضربة كي كان دخل لي لم يكن كلاما ومن أمنت يوم ما خمني لا يخبر دون سبار بيت مم دون خبر بيت مم ولا عنو دون كوت الخبر هو حرف حرف مم kenn du ko xibaare kenn du ko wutal xabar ndax woon min jógee lan lam dàq xarfu dàq la bal xarfu idraab la dabaatal yooyu kenn du ko wutal xabar kenn du ci xibaare intaha jeex na mais insaaf yi jógee ko ci jëlee ko ci insaaf bi tasarufin soppi nañ ci tuuti rek dégg moom it adreti taqsimi karaam yi bokk na si xaaj yi mm, tegtalu xa eh, séddale karaam إذا هذه أقسام الثلاثة التي يتقاضي الاستقراء طب إذا حنا كلام اسم لك فين الحرف مو استقراء استقراء مو لم مو <coughs> طب رك لانج عرب كشين شلو مين يتي وهو استقراء لغة نتي لانج عرب تتبو مو طب من استقريت استقريت طبنا البلدة دكبي إذا تتبعتها بمكتوبة قرية قرية دك بدك ما استقريته ويتوقنا قريب جان واستلاء ان تجف لكم نحو نك استقرار مفري ما يتتبع الجزئيات توب قاجي والحكم وقات على الكل كلب ندخ يا من توب وخ عربي اب دك رنجي توب سين وخ جسم اسم لا فعل لا حرف سوكو دافاي غاتيكو سي دك ياب ني مبولم ني وخ عرب سين وخ اسم لا فعل لا حرف kon da ngaa topp xaaj-xaaj mooy ab dëkk att ci mbooleem dëkki arab yi ne seen wax ismul ak feel ak xarf fa nuxaatu to ñooñ nax wi te te boo topp nañ kalaama majmuatin waxu mbooloo su ko defee mu ne ñooñ nax wi topp nañ waxi mbooloo min buldaani arab yi ci réewi arab yi fa wajadoo ñu fekk naadi aqsaamu salaasa na ñetti xaaj yi moom aqsaamul kalaam mooy xaaji kalaam ab dëkk rek lañ topp gis ne daal seen wax ismu la wala fen la a xarf wala kaana bu nekk hunaaka foofu xismu raabun xaaju ñeenteel laxasaroo kon ñu yëre ale ci moom mm, waaye daal xam nga ne Jaafar bun Saabir daal gis na moom xaalifa mooy ismu fenlu mooy loo xam ne maanaa ci moom yooyu ci gën a ñëw wa min addilat yi bokk na si tegtali kazalika comme noonu tegtalu xel mooy ànd na kalimat na baat imma benn ay yakunu mu nekk laa ñeel ko maanaa maanaa fi nafsiha ci boppam moom rek am na maanaa bu muy tekki <coughs> kon su boobaa loolu mm, mm, dégg nga mm, ismu lay doon wala fi'lu aw laa wala amul ci boppam mooy xarf feneen bu nekkul laa ñeel ko maanaan maanaa fi nafsi ci mooy xarfun moom rek boo ko waxee doo am maanaa fii ci <coughs> kooku xaaju maanaa nga yore waaye doo am maanaa bu mat dégg nga wayen kaana nekk na laa di ko ñeel maanaa maanaa fi nafsi ci boppam fay ma benn an taxtari na mu ànd bi zamanin ci jamono bu baax muy fexlu awla ba ànd ak jamono muy ismu moo tax asaanitu bu ñaareel bi mooy mooy ba ànd ak jamono al ismu mooy tur al ula bu njëkk mooy ba ànd ak jamono mooy fexlu bu dee baat moom kese bu ko waxee mu am jamono loolu mooy fexlu. ñu ngi kataba bind na moom rek déggee nga ne am na ko bind te dafa ànd ak jamono fexlu la muhammadun dégg nga ne am na jëmm joo xam ni nii lañ koy xooxee muhammad loolu ismu la mooy ànd ak jamono bu baat bi nag foo mu dugg ci jumla maanaam door a leer comme min kooku mooy xaraf wa hada lii maa yusamma mooy lañu tuddee ba istiqra aqli ci topp ci wàllu xel bañ xoolee ci wàllu xel yi dañoo gis ne kalaam ñetti xaaj rek la benn baat bi rek am maanaa ànd ak jamono muy faalu wala boog baat bi rek am maanaa te du ànd ak jamono muy ismu wala boog baat bi balaa maanaam di leer foofu nga dugal ko ci jumla loolu mooy moom si boppam amul maanaam si boppam kon xaraf yi su ko defee loolu kon istiqra al aqli ki xel moo ñu xamal ne <coughs> dégg nga kalaam ñetti xaaj rek la waxu abu janfar janfar bun saabi bi nag xoolaat ko bu baax rek boo xam mën nga ko da nga koy daa xam da koy saxal allah alam sëriñ mu doon wax si biir darsu mu ne ma dayzun dayzun tur la ci tur américain yi waaw mais nag arab moom daf ko def muhammad jëfandikoo wut ko tuddeewut ko kenn hmm. langue bi nag langue arab la ñuy jàng fi mu nekk ne moo tax waxi américain yi dañ ko ci génne dégg nga euh, yaakaar naa bind na ma ne am na fen rek moo fawoon ak yooyu xaw lu mu ci bëgg wax waaye fen yi rek moo fawoon yooyu ba léegi ismu lañ hmm. yooyu day dugg ci bunt ismu xaw ma nag lan la ci bëgg a laajte amaana bu dal subu jeexee bu dee dafa am leneen lu mu ci ko نيو تي عربي باب الكلام اي هذا باب الكرام باب الخبر لمفتر المعذوف تقديره هذا ها حرف تنبيه مبني على الفتحة ذا اسم إشارة مبني على السكون وعلى رفع مبتدا وهو مضاف حد مضاف إليه مجرور ولا متجر الكسر ذا العقل وهو الكلام مضاف إليه مجرور ولا متجر الكسر ذا العقل حد الكلام حد مبتدا مرفوع وعلامة رفيع الدم الظاهرة على آخره هو مضاف الكلام مضاف إليه مجرور ولا متجري الكسرة الظاهرة على آخره ولا في آخره بس شوف لنك ما نكرة موصوفة يرى معنى اللفظ بمعنى اللفظ ما نكرة قن ملل قن يرى معنى اللفظ أي حد الكلام لفظ أفاد مبني على السكون في محل رفع خبر المبتدا دينغ أفاد فعل مال <coughs> مبني على فتحة الظاهرة الآخر وفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على ما هو قد يدل ما أفاد هو والجملة في محل رفع نعت لما المستمع مفعول به لأفاد منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة روي من ماسك بيرك مو سخل يسكن كو ولا يسكن كو اي فتحه لو ما افاد المستمع نحو <coughs> خبر لمبتدا محذوف تقديره وذلك واو للاستئناف ذا اسم إشارة ممن السكون في محل رفع مبتلى لام للبهد كاف حرف الخطاب نحو قبر ذلك مرفوع ولا مترفع دمر ذا الآخري نحو مداف لقول محذوف تقديره موين نحو قولك نحو دفع لاف قول كن حذف نتلب موين نحو قولك قولي نحو مداف إليه مجرور ولا متجري الكسر ذا الآخري ومضاف كاف دمير متصل نمي على الفتحة في محل جر مضاف لي دنگا بلان خير نغا بني حسب النحو مضاف لي غني نحو خبر مبتدا مضاف تقدير وذلك صحف ماضي مبني على فتحة مقدرة على اخره منع من ظهر التعذر زيد فاعل مرفوع ومترفع دم متزايد على اخره والجملة في محل جر مضاف اليه بنحو نه من نالاف سانزيز من نالاف قولو بفك قولو خلاف لك نان مدا نحو مداف لقول محذوف تقدير نحو قولك <laughs> قول نك مداف اليه نحو مجرور كاف جي مومد في محل جر مداف لكم نمو كان رابي لك سان فعل ماضي زيد جمله في محل نصب مقول القول <coughs> سان زيد dafa nekk baat bu nasab ndax xawlu gi moo ko nasab naaw xawli ko loo wax changé bi boo fa kiiwee xawli ko boo fa nattaliwul xawli ko nag su ko defee changé bi day nekk fi maxala jëri mu daa fi day ci naxu waaw xar faxat fin amrun mubtadaun marfun wala mutara fi adam mutazara aqri mutabiun xabarun marfuun wala mutara fi adam mutazara aqri wal jumlatu fi maxali nasbi معطوف على سعى زيد ولا في محل جر معطوف على جملة آه، آه، آه، سعى زيد بوكو دخل في محل نصب تنقفارة ما هو قولك سعى زيد وعمر متبع ولا في في محل جر نك دنگن نحو سعى زيد وعمر متبع نحو جر جملة <coughs> ونوع الذي عليه يبنى ñaari jumlu yoy lañ jàng tey waaw li مبتدا مرفوع وعلامة رفعه الضمير الظاهر على آخره ولها ضمير وهو مضاف ولها ضمير متصل مبني على الدم في محل جر مدافع إليه دينغ. الذي اسم موصول مبني على السكون دينغ. في محل رفع نعت لنوع ونوع الذي على عرف جر مبني على السكون ها ضمير متصل مبني على كسر في محل جر على والجار والمجهول متعلق بيبنى يبنى فعل مدار مبني للمجهول مرفوع ولا مترفية الدمة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر ونائب فاعله ضمير مستتر تقديره هو يعود على الكلام ونوع الذي يبنى عليه أيبنا الكلام عليه والجملة لا محل لها من الإعراب صلة الموصول جملة بيمنا صلة الموصول لا دينغ دينغ عليه نك ها غوغو موم موي نك عايتي الذي دينغ ونوع الذي يبنى دنجو تبع عليه تي موم ها غوغو موم damir boobu mooy dellu ci lazi nekk ayit bi yub naa gi nag damiram bi ci kalaam lay dellu wana moom waxeetam allazi bi nga xam yub naa dinañ tabax kalaam alayhi ci loolu lazi nag ayit ba ci dellu damir ba ci dellu mooy xaagi yub naa naaye bu faayam ci kalaam lay dellu <coughs> dégg nga wana moom allazi yub naa alayhi الدم الظاهرة إلى آخره ونوعه الذي يبنى عليه هي مبتلى نوم مبتلى الذي ناطر يبنى سلا إلى له نائب فاعل وهو دلالة كلام عليه جار مجرور هاي الذي عليه أجيش يبنى ونوع الذي يبنى عليه اسم ما خبر نوع مرفوع على متفعل مزارع وارفعت فعل معطوف على اسم والمعطوف على المرفوع مرفوع ولا مترفع دمر العراقي ثم حرف عطف حرف معطوف على اسم والمعطوف على مرفوع مرفوع ولا مترفع دمر العراقي معنى هو مضاف معنى مضاف إليه مجرور ولا متتبع الكسرة المقدرة ألف المحذوفة لالتقاء الساكنين معنى dégg nga yaa googu lañ tanwiinoon ñu dindi yàgg nag def ko alif muy maanan léegi mun gi xam nga boo dindee yàgg ni yàgg boo ko dindee maskam bi danga koy jox nun ko <laughs> ñaareel boo xoolee xaraf ràgg boo ko asafee rek maskam bi danga koy jox ba ko jiitu léegi nag nga def yàgg alif maanan am tanwin su ko defee ñaari sukkoon day dajee foofu sukkoon tanwin ak sukkoon alif bi loolu war ñu dagg alif ga xasaf ko <laughs> léegi nag kon mask bi ci alif googu la waroon nekk waaye dañ ko saf ngir bañ ñaari sukkoon daje muy sukkoonu tanwin ak sukkoonu alif loolu mooy maanaam mudaaf ilayhi majruurun wala mutajari al kasratu al muqaddara ala al alifi al maxzufati dañ ko nettale ci alif guñ xasaf lil tiqaayi saakine ngir bañ ñaari sukkoon yu daje hada in uridu lil islam istataatum ama tawfiqi illa billahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh